جاء محمد مع يصلب على لمرسية بما يرجو ايوه صفيا ننتي بلا غيتك وطلوب بجاي محمد

وطلو بجاه

قدمت بين يدي مدحنا لكني قدمت بين يدي مدحنا يا رسول الله قدمت بين يدي صب يا نمتي بلا خيجك واي خدمت بين يدي مدحنا رسول الله خدمت بي بين يدي يا مدحر وجاء المدينة خدمت بين يدي يا مدحر يا رسول الله وخدمت بين يدي يا مدحر المدينة أسلمت وجهي للذي فترى السماء وأتى العلا والأرض ربي محمد أسلمت وجهي هي للذي فترى السماء وأتى العلا والأرض الأصحاب مع أزواجه ومن انتوى يوما لآل محمد والآل والأصحاب مع أزواجه ومن انتوى انتوى يوما يوما يوما وجيب الجنود من انتوى يوما لآل محمد ci sopp yonent bi da nga defe ala man intawa yawman li ali muhammad لآل لآل محمد من انتوى الرحمن الرحيم قبل كل شيء الحمد لله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته البازلون النفوس والنسائح لأهل كلمة الله وبعد إخوان في كل مكان نحييكم ونسلم عليكم تحية طيبة تحية منها البناء إلى هذه الحضرة ألا وهي السلام من الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم mbokki jullit yi gannaaw sant yàlla delluwaat santati yàlla tey julli ci sangi-sang yi mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkateeti kàddu jàmm ju lënkale ko xéwal ak mucc bàyyee ko fa yàlla mu nattuñu mu jaarati suñu làmmiñ ñu ngi koy joyal taxaw taxawaayu Chérif Maamine Aydara waaye àbb làmmiñu tafsir Abdourahman di ko teg ci loxo Seyd Abdullahi Fall mu joxal ñu ko Cheikh Ibrahima Ndiaye ak Haja Mariam ngir fii ñu toog àdduna war wërngal képp di ñu déglu ci guddi gi nga xam ne moom lañu ñu leen ki nga xam ne moo di sangi-sang yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel bu baax àdduna ci xéewal gi nga xam ne moom lañu yàlla defalati moo di weer wii nga xam ne moo di sangi weer yi démb ñu génn ci sangi bés yi mu di àjjuma tey di ba si samedi ñu taxawati noonee nga xam ne tafsir abdourahman ak shérif mamin dara ñoom li nga xam ne moom la ñu di baaxoo di teg suñu loxo moo di suukar yi koor la ko talee bésu altine ja ba ci àjjuma ja waaye bu sam samedi jotee ñu woowati àdduna ne leen kaay leen ñu ànd ñun ñëpp bégal suñu xol ci ki nga xam ne moo di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi waaye tey si tey li nga xam ne moom a yéem tafsir moo di weer wi ñu nekk wax naa la léegi mooy sangi weer yi waaye am na génn guddi gu ci nekk moo di sangi guddi yi mu di géy la guddi laylatul xadr kon mu mel ni dafa am lu bokk daje ci kenn tafsir ma di la laaj pour woo àdduna wërngël képp ñépp xam kookee lépp yépp daje ci moom mooy kan laajaat naa la ko euh, ki tax yàlla binduñu ñun ñépp mooy seyduna muhammad sallallahu yàlla mënoon ñu def ñu judd ci jamono lu jiitu ñi ko fi jiitu ñépp cent vingt quatre mille lañu ñoom ñépp waaye boo ci boolee rasul waaye cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf boo ko ci génnee moo mujj ci ñoom te moo leen jiite kooku kan yemu ca mu jël diine bi gën ci diine yi am na yu ko fi jiitoon waaye diine moo mujj mu di diine lislaam mu jox ko ko kooku kan la wëlbatiku xeet bi gën ci xeet yi xeet gi fi newoon am nañu jiitu nañu naam waaye xeetam moo gën ci xeet yi xam nga diine gi gën ci diine mooy la ikraha fi diin inna diina inda allahi islam yàlla jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran mooy téere bi gën ci téere yi yàlla jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min ashatillahi wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun ila axiri al aya waaye yemu ca yemu ca mu jox ko weer wi gën ci weer yi mu di chahru ramadan al mubarak waaye tamit wëlbatiku ci guddi googee inna anzalnahu fi leylul xadr wa ma adraka ma leylul àggaguñu ca mm-hmm. mu ci ay ayu bés te xam naa ne dafa dina fi xewi ji mm-hmm. loolee yépp nag mu jox ko kenn xeet wi gën ci xeet yi ndax kuntum xayra ummatin uhrijat linnaas taxmuruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar waaye loolee yépp nag daje ci benn jëm wax gen ko léegi mu nga ca a Munawwara tey ci tey àdduna wërngal képp may leen ñu seen nopp taataan na leen ñu seen xol ndax kat tafsir abdourahman ak shérif mamin fas nee ni yooyu nañu bëggal ndax yaa ayyuha alladina amanu wa tatmainul xuluubuhum bi zikrillahi ndekete yoo ala bi zikrillahi tatmainul xuluub mu ne ñi gëm ñu ngay defal seen xol ci tudd yàlla ndekete ci tudd yàlla la ñuy amee tawfiiku xol kon ñu bëgg rek macha allah rabbul alamin àdduna wërngal képp ci weer wii nga xam ne moom la ñu am muy weeru koor waaye ci bërëb bii nga xamante ne El Hadj Ndiaye defati na ñu bokk ñun ñëpp mbokk yi taaxirlu kii bëggal suñu xol ndax li wér ba wér mooy ñun dañu feebar te feebar gi ñu feebar le médecin fekk diagnostiqué le mal Après quoi, il prescrit le médicament qu'il pense pouvoir soulager ce mal-là. Mhm. Mais la guérison est une exclusivité divine. docteur bi mënul lu dul càmbar li la feebar bu ko càmbaree ba pare seet nag xoox sàngam wala ndox sàngam wala siro sàngam dees na amaana amaana boo ko naanee am ci ab tan waaye daal dëgg-dëgg ñun feebar bi ñu am kenn mënu ci leen ku dul ñaar ñii nga xamante ne bi ñoo toog jàkkaarloo àdduna wërngal képp kenn ki tudd shérif maamin di dogitu yonent bi sallallahu alayhi wa Abdourahman Tafsir Gaye di dogit tamit ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax naa la ko du benn yoon du ñaari yoon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna jaddu man maay maam yi képp ko ragal yàlla te ñun ñii ñëpp ñu boole suñu bopp ci ñi ragal yàlla kon bu ñu fi toogee di njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àndax mbokk yi nga xam ne ñooy suñuy docteur yi xol ndax kat ñoom ñoo ñuy taggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu mën fi am tawfiix di ñaan yàlla koor gi ñu sum yàlla nañ ko doore ci bismillahi rahmaani rahim sottal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye daal ku leen déglu ko ne dana dégg te li am solo moo di kiy yër di wax ak kiy yëg di wax duñu benn waaye tafsir yër na waaye fi mu toog nii yëratul da yëg di wax kon ñun ñëpp ñu ànd ñaan yàlla subhaanahu wa taala lal suñu ndabi xol ñu yàbbil ñu ci loo xamante ne bi fii ba keroog ñu teew ci kanamu yàlla lépp yiw lay doon wa kullu amin wa antum bi xayr mm-hmm. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بارك لنا بارك لنا اللهم في الأدوية واشف بها يا رب كل علة بيدك شفاع ليس في يد غيرك